tàng boo xamante ne bii boo wax nii. waaw lu dajee dara ci. lan la si def def fële. ah Sapeur. waaw boo def si dal gaay. ah mais Pape nag Pape nag li ñu ci ci voie bi moom da ngay rey ko tas ah. parce que Pape bu ñëwee day may xaalis bu bëri. si moom la ñu wër. naka mu. wala boog. est ce que toogal toogal naka ay jullit lañ mais góor góor bu kalam toog ci teg ataaya yor seeni biyeeri def nii di naan naan ay jullit lañ mais yéen si ban diine ngeen bokk diine ji nga bokk moom la ñu bokk yéen gën a ngeen si diine ji bu yàgg mais yëpp leen siy ngeen man maa leen siy génn parce que am na moo tax man maa leen siy génn parce que jullit day def yëfi jullit du wax waxi jullit xam naa ne moom fiscal. ngay soog a waay saabar mi nii sama waay la sama xarit li ñu teg nii ñun wax naa la ko bët démboo jaay man nee naa la man sama yaram bu fa feebar yaa ngi dégg du sama bopp kii dafa feebar man ma feebar est-ce que yaa daa xëy sama bopp. voilà yow war naa mën a am kenn say sax kenn li am taay heure yow nag moom la nekk defal. Ah, man boo demee sa rakk boo sa rakk dina wax lu tegu si yoon ak tegul si yoon booy boo amee kaas booy tëjee na naan boo ko naan topp ngeen naan parce que yéen ñu bon ngeen ñu yées ngeen gis nga yàlla dafa wax si alxuraanam gii pour ñu suy dox di si dégg di si def alxuraan gii nag dañ ko waay wàccuñu ko pour ngeen di def lu leen ne parce que li ngeen di def nii nekkul si alxuraan alxuraan da boo mënul woor nga wàcc na koor gi wàcc na mais yéen amul benn critère bu leen teree woor. mais wax nga ne alxuraan moo ne boo mënul woor koor gi wàcc na la. waaw ñun mënuñoo gi wàcc wàccee. yow yaa ngi yaa ngi dox say yaa ngi lekk di naan am wér wér gu yaram kon yow woor da laa war. mais est-ce que xam nga ni ñu ne hôpital feebaruñu ñu ne hôpital feebar ñu ne ñoo feebar yéen ñi yéen a feebar waaw wax ngeen dëgg sax ndax yàlla ulul axbaar yi lay wax mais yéen ñu doon yéen ñi kasara yi ngeen doon yéen doo leen ñu dara wala Eva mooy woote nii Eva mooy woote nii Eva mooy woote nii Eva mooy woote yow yaa gën a ñàkk a fayda ñëpp yow gën a ñàkk a fayda yéen ñaar uy ma waa guddi guddi non suba ay ay ay ay ay ay yooyu war nañoo mën a daje réseau réseau. Euh, Amadou Bari ah Amadou Bari wala Tima Tima waaw gargotu Tima bi war nañ foo war a mën a dem xam waaw foofu waaw am waaw day am suupu kànja day jaay sax xam ay mbaxalu saalum waaw lépp lay jaay. waa Eve waaw waaw waaw suba foofu la ñuy añaa. eh na nga teel a ñëw eva waaw na nga teel a ñëw. na nga teel a ñëw Eve waaw. waaw waaw waaw waaw daa ko mu dëgg la Kaani. waaw Kaani ak bëgg Kaani kii. Kaani bëgg Kaani. surtout ba keroog la waaye Kaani ba mu ne xoola. damay jékki rek daw. mais xam lu ma neex ci Eva. Eva nga ànd ak moom soirée rek mu solal la lu yem fii. waaw. yow barke démb kooku dafa pare. non barke démb laa wax virage. mais saa waay sama lëwal bi waxoo ci de. waaw booy lëwal bi macha allah. Ah. dëgër kañ.